قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن mbokk yi bàyyi xel mboolem site internet yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ñu synchroniser lépp li nga xamante ne mooy liggéey bi tey ci fii ci euh, Touba di gisal ci nuyoo beeg ziar bi saaxibul fadila wal wasila Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram waaye doon lañ ko ñaanalee mboolem jabootu Serigne Touba gi mbokk yi ñu bàyyi xel ñu ngi fii ci fi nga xamante ne moom moo di kër Serigne Touba gi nekk ci euh, biir Touba ci jumaa ji ñu gis ne si subaak léegi yéen nga ànd ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo ñoo di way xarala yi nekk ci euh, liggéey bi ngir ànd ak ñoom ci wàllu li nga xamante ne moom moo di njàngom xasida bi nga xamante ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo joxe ndigal li ngir ñu ko amal ci dëkk bu sel bi di Touba incha allah dinañ ànd ak yéen jile ci mboolem waañ yi nga xamante ne ñoo wër jumaa ji ngir fas yéene leen a dem waxtaan ak ñoom ngir xam nan la ñu fas yéene waajalee li nga xamante ne moom moo di bis bi waaye nan lañ ko fas yéene séddalee li nga xamante ne moom la ñuy eh, togg waaye tamit nan lañ ko amalee ak lépp loo xamante rek am na ci waañ des na ko jëlal ngeen ànd ci mboolem eh, site internet yi nga xamante ne ñoo takkatoo doon benn fas yéene liggéey bi lépp jàkk eh, sàkku ci ngërëmal ngi fii xam naa dañu njëkk ci waayu soxna maam Issa Mbacke fii ci biir kër Serigne Touba gi ci kanam tuuti mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci biir kër Serigne Touba ci waañ yi nga xamante ne nekk ci biir euh, kër gi ñoom ñëpp ngi fas yéene àndandoo takkatoo doon benn ngir amal li nga xamante ne moom moo di xeeti bernde yi nga xamante ne ñu ngi koy def ñu ngi taxaw ak jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yore euh, daayira bi nga xamante ne moom moo di waañ wi di euh, jaalibatul maraaxib ma a dugg ci laaj ak tontu yi waaw ah, salaamaaleykum ah, yëpp te di leen ziara noonu sama tur mooy bay Gallo mbay Ahmadul Mokhtar eh, ci di soññeekat ci biir daara Jaalibatul Maraaxib ahlu xidmatul xadim Baye Gallo Mbaye eh, Baye Gallo eh, question bu njëkk bi mooy nan ngeen waajal li nga xamante ne moo di liggéey bi ñu amal fii tey si njàngum xasida bi waaw waajal màggalu xasida yi moom noonu dañ cee sax waaw ndax noonu yaakaar naa bi mooy suñu fukkeel ak ñeent ci taxaw màggalu xasida yi ndax yaakaar naa 2011 bi njëkk a 2011 laa jàpp wala 2012 bi njëkk am kër Serigne Hamzatu noonu euh, bokkoon nañ ca ñañ ci njëkk a sant ci ñu demoon fa ci ngir setal kër gaag yu mel ne moom. loola nag booba ba tey duñu ñu deñ di ànd ak màggalu xasida yi ak fu mu mën a nekk ci ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha wala ndigalul Serigne Hamzatu moom Serigne Sohaibou ci setal fu ñu ko war a defee ñu dem setal barab yi ba mu set. bu buñ setalee ba noppi dajale sunu la ñu am sunu wërsëgu euh, dund adduna nu dajale ko ganalee ko gan ñi ndax mooy li ñu suñu am surtout diggaloon mooy ginnaaw buñ setalee ba noppi euh, ñu bokk ci ñiy ganale gan ñi ci euh, ànd ko sëriñ bi waaw. Ah, mën nañoo xam ndax quantité bi nga xamante ne préparé ngeen ko pour jox ko jaam yàlla yi. Mm, def nañ ñaar fukki bana ak ñaar. def nañ ko ak wàllu hygiène bi nga xam ne tamit euh, jën dañ ko ànd ak euh, beneen daayira waaye sunu lu ëpp ci ñoon hygiène lañ gën a feeñ ndax ñun hygiène mooy moom moom lañ jiital waaw ci wàllum set lañ jiital bu ko defee hygiène boobu nag dañuy wër kër sëñ Touba yëpp am ko am commission boo xam ne ku ñaan sëñ Xaadim Yàdd moo ko jiite ak euh, soxna ñaana Jóob ñoom ñoom ñoo koy taxaw hygiène euh, boobu dañ cee dañ caa dañ caa def loo xam ne day xëy na rapport boobu ma ci waaye jëmmi mbana yi fii ñu nekk moom ñaar fukki mbana la ak ñaar ak euh, ak ak café ak ay ay xéewal yu bari yu ñuy jaayante boole ci yu mënta tudd. xam nañ ne euh, ren objectif yi nga xamante ne Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, visé na ko jëmee ci liggéey bi bokk na ca euh, waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ndax xam yéen ñi nga xamante yéenay dawaayir yi nekk Touba ngeen takkatoo doon benn ngir fas yéene liggéey bi nu mu jaare yoon ba xam yéen a ngi ci xalaat boo ngeen àndee ak yeneen daayira yi ngir amee relation ngir liggéey bi mën a yem. waaw wér na wér na loolu ba ko sëriñ bëggee rek la am sëriñ bi ko bëggee la amee yi loola la maanaam loola la firnde loola la firnde ndax boo dee xool bu ñu ngi ko tàmbalee ci jaalibatul maraaxib foofa ay daayira képp a fay dajee booloo bennoo ngir taxaw maglu xasida yi ngir mu mën a mel na moo mel fii ma toog nii di wax ak yow ay daa du benn daayira képp képp képp képp ay daayira bari ndax ndax ndax ndax euh, kii ñuy wax ni sëñ Xaadim Guèye Madiana moom jëwriñu waa Madiana la euh, quartier Madiana ak euh, quartier Loyenne Euh, fu ci nekk mbooloo fa jóge euh, euh, kii di sëñ Cheikh Sall kii di Mame Thierno Kane moom asalem ci ndaw yi asalem yi moom moo leen jiite dégg nga ak sëñ Mbacke Gueye mi ñoom ñëpp ak yeneen i jëwriñ yu bare bëri yoo xam ne ku ci nekk sa mbool sa mbooloo benn mbooloo nga ci biir Jaalibatul Maraaxib waaw ñu booloo nag. d'accord kàddu yi tàggatoo yi lan lay doon. xanaa gën a ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha sama borom dëgëral ko wéral ko. te kattanal ko ba lim yéene liggéey sëñ Tuubaa ci rawatina ci ñun ahlu xasida yi waaye ci bépp ci bépp jullit saa borom kattanal ko ba mu taxawee ko nu fawxa ni ko jaam ñiy xaare waaye nu fawxa ni ko sëriñ bi nu ma ko mën a waxee sax duma ko maam mu gudd fan lool wér lool dund ak noonu ci xaside yi nag ci bànneex bii ñuy dund mu sax dàkk ba aljanna incha allah jërëjëf mbokk yi lii mooy reportage bi leen jëlee ci lenn ci waañ yi nga xamante ne ñu ngi ci kër sëñ Touba gi nekk fii ci jumaa ji ci kanam tuuti des na jàll ci yeneen i waañ ngir jokkale leen ak euh, la ak mboolem nga xamante ne ñoom ñoo di synchronisé yi sant ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu qasaidi min mujizatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa